ba juróom-benn fan ci weeru août atum 2014 mbokk yi teewlu télévision Futurs Médias bismillah ci xibaaru digg bëccëg beeg ponk yi ci gën a fës euh, daanu àddu ci procès bu Karim Wade ñu dàbbalewaat ko tey jile waaye ci li ñu jàpp bataille de procédure euh, moo fa am ba tey xëccoo bi ci diggante avocat yooyu di layal Karim Wade ak ña ànd ak nguur ga ñay layal Karim Wade ñoom di lank ba tey ci euh, CREI bi nga xamante ni moom la ñu jàpp ni warta atte kii di Karim Wade daan ci jokkoog suñu ndaw la fa nekk Ibrahima Kane nañu ko waxee woon loolu nañu ko defee ñoom dàbbali nañu ko ñooñu nga xamante ni ñu ngi doon araftu ne daañu xiifal muy liggéeykatu conseil régional ba ñoom nag xëy nañu def lu ni mel ci seen loko yooyee ndax ab tànkam lu la ñu nemmeeku ci seen jëwriñ ji di Omar Youm ak directeur des collectivités locales sénégalais yi ànduñu benn yoon ci référendum ngir wàññi mandat bu njiitu réew mi Macky sàll ci juróom-ñaari at yóbbu ko ci juróomi at loolee dañu ko lànk waaye bu ñu sukkandikoo ci constitutionnaliste bi eh, eh, Babacar Gueye moom dafa jàpp rek ne ab référendum moo war a nekk nag donte sax référendum boobee euh, dina coûter cher lool nguurug euh, Sénégal leneen ci ponk xibaar yi euh, muy procès bu Karim Wade ak li nga xamante ni moom mooy jàngoroy Ebola ñàkk instabilité bi nekk ci nguur gi loolu yëpp yi Sall waxtaanee na ko ca France 24 TV 5 Monde ak Voix de l'Amérique sénégalais yi ne ëpp na ndax kat wax bala neex nga wax ko fa ko war a waxee daanu addu bëgg a daanu te boo seetloo tey jekk-jekkal gee ci ëpp mu ñu penturature ña ngay raaxaat te loolee euh, di jur giraawaali ndax ca daanu lay mujj askan wa nag ne jot na tey kilifa yi jël matuwaay ci loolee ñenn ci architecte yi gis ni lii am ba am mooy dañoo sàmmul li nga xamante ne teg nañu ko ci wàllu tabax muy ay norme mbokki xarit yi ñu seetaan kon lii mooy ponk yi gën a fës ci xibaar yi yaatal geek faram ci Guinness tuuti lay doon jàngeen def euh, ci ànd beeg télévision Futurs euh, Médias ni ma ko waxee woon euh, ci ponk xibaar yi procès bu Karim Wade dooraat tey jile waaye ci xibaar yi ñu mujjee jot moom xëccoo bi ba tey mi ngi dox ci diggante avocat yooye di layal Karim Wade ak ña farak nguur ga dañuy dem ba palais de justice fekki fa Ibrahima Kane maa ngi lay nuyu. Ibrahima Kane fan lañu toll ci procès boobee. Euh, fi ñu ci toll mooy jamono ji may àddoog yéen audience bi suspendre nañ ko ba quatorze heures waaye comme ni nga ko junjee euh, xeex bi jëm ci wàllu procédure bi ba léegi moom mooy wéy démb partie civile bi ak par euh, parquet spécial àddu nañ ci tey ji nag defence bi moom moo ñëw daal di continuer nag taxaw ci fi mu jàppoon rek maanaam cour de répression de l'enrichissement illicite warula mën a àtte kii di Karim Wade défense bi nag nee na moom position boobu mu jël amul len len len loo xam ne nii ñàkk na cee leer war dara bu ñu xoolee loi bi ngir nag euh, mu dëgëral li mu wax euh, ñoom euh, avocat défense bi ku ci mel ne maître Souleymane Ndéné Ndiaye madi Niang maître Pape Leyti Ndiaye wala sax maître Ciré Clédor li ngir bañ a cité ñëpp rek àddu nañ nag yëkkati li nga xam ne moom mooy article cent un bu constitution bu Sénégal bi nga xam ne mooy wax ne kuy ministre wala nga nekk ancien ministre bu fekkee dañ la war a atte dañ la war a yóbbu ci haute cour de justice yëkkati nañ tamit leneen lu jëm ci benn décision boo xam ne cour de justice bu CEDEAO te Sénégal nekk membre CEDEAO moom moo ko génne woon 22 février atum 2003 féddaliwaat lu ni mel ne ministre wala ancien ministre cour de justice lañ ko war a yóbbu ci loolu nag euh, décision cour de justice bu CEDEAO moom man daanaka moom moo nekk ci kaw euh, suñu loi kon donc ñoom jàpp nañ ne CREI bi warul mën a yi mu wàdd ci leneen tamit wax nañ ko yëkkati waat euh, li nga xam ne maître Doudou Ndoye xamle woon na ko fi jàpp ne bi mu fi nekkee garde des Sceaux ci nguurub Abdou Diouf moom ci boppam wax na ne moom moo yóbbu woon loi booboo ci assemblée nationale ñu abrogé ko bu meesuwul abrogé abrogation express boobu ñoom it dellu si nañ tamit euh, ci loo xam ne la ñuy wax ci droit abrogation tacite maanaam ñu jël euh, loi organique bi nga xam ne moom moo tëral ordonnancement judiciaire bu Sénégal maanaam yan këru atte ay ñoo fi nekk ci loolu xam ne nañ wax ne tamit euh, ci organisation judiciaire boobu yëpp amul fenn foo xamante ne ni def nañ ci CREI yi kon buñ ko jëlee ne nañ ci angle boobu rek loolu abrogation tacite la ñuy fàttali rek ne fat ki ne dem kon euh, audience bi ñu ngi ko tijj ay euh, dix heures bi mu jotee salle bi nag fees na dell ñaari parti ñoo fi nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy soutenir Karim Wade ak tamit ñeneen ñoo xam ne soutenir yuñ ko boo gisee avant Karim di yow sax maître madame Viviane Wade moom moo njëkk a yëg si madame Viviane Wade bi mu yëg see ñenn ñi ñu ngi koy acclamé ñeneen ñi di ko yuuxoo Karim Wade itam noonu la demee woon kon fi mu toll nii daal audience bi suspendre nañ ko quatorze heures lay démarré waat ñu wéyalaat euh, bataille de procédure bi Euh, kon loolu leer na audience bi euh, suspendre nañu ko dañu dana door kon bu juróom-ñaari waxtu bu ñaari waxtu euh, jotee ci ngoon kon fii ak ñaari waxtu dong lay doon Ibrahima Kama Ibrahima Kane plutôt ñu di ko jaajëfal bu baax moom moo ñu nekkal foofee ca palais de justice ñu tënk li laata ñu jàll ci leneen muy juróom-ñaari sapeur pompier yoo xamante ni teg nañu leen loxo bokk na ci ñaari adjudant loole nag gannaaw enquête bi nga xamante ne fésal na ay xibaar enquête boobu nag pompier boobee nga xamante ni moom moo faatu woon euh, ca diwaanu Thiès di wuyoo ci turu Chérif Ndaw gannaaw nag ab formation bu mu fa doon def euh, ñu jàpp nag ni l'enquête bi euh, dafa daal di feeñal ndax kat ay kilifa ci wàllu sapeur pompier dañ doon wax ni mort naturelle la maanaam dafa dee rek yàlla moo ñëw waaye nag l'enquête bi dafa feeñal leneen ci ñooñee ñu jàpp sax bokk na ci ab docteur bu nekk fële ca hôpital Aristide Le Dantec ak benn assistant lii nag di l'enquête bi dafa fésal ni am na leneen loo xamante ni moom moo ko di mujj yóbbu ba ci hôpital principal gannaaw bi foofee ab professeur addu ci l'enquête bi nag daal di wane ni kookee di Chérif Ndaw mi faatu woon euh, ci atub 2013 ci décembre moom nag dañu ko méttital méttital bu fitna goo xamante ni daal jéggi na dayoo euh, fitna googee moo ko mujj jural giraawaale ba mu mujj ci ñàkk bakkanam waaye tamit ay photo yoo xamante ni benn yéenekaay génne woon na ko photo yooyu moom dafa daal di euh, wane kon mandarga yi nga xamante ne nag moom moo nekkoon ci yaramu sapeur pompier boobee njabootam sax teglante euh, ca yoon euh, dañuy daal di euh, nag dellu kon di wax ci procès bi ak maître William Bourdon kenn ci avocat yu layal nguurug Sénégal moom nag dafa rafetlu bu baax jamono yi anam bi nga xamante ne noonee la procès bi di doxee moom nag ne na kii di Karim Wade ak mboolem ñu ñu tuumaal ci alal ju lewul daañu wuyu bu baax ci lii li ñu leen di woo waaye nag li nga xamante ne noonu la avocat di jëfee ñoom xam nañ ko bu baax a baax ndax jaaxalu leen si seen ñu teewlu ko euh, moom euh, William Bourdon ci micro euh, Chérif Dia. ab état nag ku koy defendre defendre kenn ku dul ay doomam maanaam citoyen yi nga xamante ni noo jël seen i impôt di contribuer ñenn ci ñi leen jiita luubal alal jooju ñoom ñuy wéy di ndool. ouvrir le Sénégal. les mécanismes. pexe yi Karim Wade ak i ñoñom tëral. mooy pexe yoo xamante ni daal jël alal réew mi luubal ko làq ko foo xamante ne yaakaaroon nañ ni kenn du ko mën a gis loolu nag enquêteurs yi ak juges yi dem nañ ba loqal ko loolu tax ñoom ñu wéy rek di wax te ñu ni mel man am naa ci expérience fekkee na procès yu bëri ñu mel ni boo leen toppee ci wàllu yoon lu ëpp li ci li ñu def mooy jéem a tuur lëndëm nit ñi ne la connaître cour yi leen di topp wante man expérience bi ma am ci procès yi ma yàgg seetaan ñu mel ni Karim Wade ñëpp buñ leen toppee li ñu njëkk a def mooy daal di dénier cour yi maanaam weddi ne cour bi amul maqaama àtte leen ak yu ni mel loolu tàmm nañ koo gis man te du tax benn yoon nit ñi moom daal di ci li nga xamante ne moom mooy yitte gi fexe rek ba dëgg gi daal di leer ngir koppar yi ñu jël ñu daal di koy waat seeni boroom loolu moom mooy li gën a am farata. qui n'existe que dans que dans leur imaginaire. ñi nag eh, di avocat yu Karim Wade ñoom nag eh, tontu nañu ci kàddu yooyu nga xamante ni tukkee na eh, ci maître William Bourdon bu ñu sukkandikoo ci ñoom avocat yooyu nee nañ nag partie civile bi amul ma di àddu mbaa muy wax lenn ci ñoom nañuy doxale waaye tamit ñi ngi xaar ci CREI mi nga xamante ne dañu jàpp ni amul sañ-sañu àtte kii di Karim Wade ñi ngi xaar nag ci CREI moom mu mu reconnaître boppam ne amul sañ-sañ bu ni mel ñu teewlu ci loolu maître Ciré Clédor Ly ci micro Alioune Dieng. avocat nguur gi dindiwul dara parce que li ngeen gis ay teesante la fii dañu ne ndax lii war na nekk wala warut nekk bu nit ñi ñëwee maanaam ay saaga wala ñëw indi ay teesante yoo xam ne ah, amul dara loo xam ne que teggi nañu ci li nga xam ne ñun fa la ñu teg nekk kii di atte amul sañ-sañu atte yaakaar naa ne que loolu ñàkk loo lay moo tax kon tey ji maanaam li nit ñi mën a jàpp ay saaga rek la. saaga nañu lool bu saaga yi bari na lool te saaga indiwuñu fi ñaareel bi moom moo diit fañ leen doon xaar pour ñu tontu tontuwuñu fenn wala la nga xam ne dañ ko doon jéem a tontu it dégg nga la ñu làq moo ëpp ndax bu fekkee ne jël nañu nan la tuddee tuddati affaire Idrissa Seck tudd ko yaa ngi déglu affaire Idrissa Seck ñun ñoo ko tudd parce que c'est clair que ñëpp xam nañ ne que lañ ko doon toppee moom moo dafa nekkoon ministre mu am loo xam ne dañ ne waru ko woon def. Karim yi tey jii bu ñu ko toppee xam nañ nekk dañu nekk ministre la woon te am na def na dawar loo xam ne ba mu nekkee ministre waru ko woon def kon léegi lu tax tey jii kii ñu ñu ñu dëkkal ko fii kële ñu dëkkal ko fële dégg nga kon élément yooyu gis ngeen ne joxuñu leen ci dara loo xam ne que war na ko mën a teggi maître Ciré Clédor lii kenn ci ñiy layal mu Wade ñoom avocat yooye ñoom sax euh, dañu jàpp ni léeg-léeg ñu def loo xamante ni euh, dëppoowul ak li leen seen charte santaane muy nag di génn saasu ne di amal ndaje ak taskatu xibaar yi euh, gannaaw procès yi loole nag kii di bâtonnier de l'ordre des avocats nee na dafa war a dakk te képp koo xamante ni da ngay defati point de presse bokk ci avocat yi na nga ko yëgal ba noppi ba mu jox la kàddoom maître Ahmed Ba moo yëkkati kàddu mu fësale ko nag ci ab communiqué boo xamante ni génne na ko du ñàkk nag ñu delsiwaat ci communiqué boobee nu mu gën a yaatu ci suñu leen jotaayu euh, xibaar maître euh, Seydou Diagne moom ànd nag ci dogal bi nga xamante ni euh, kii di bâtonnier de l'ordre des avocats moom génne na ko moom nag nee na daal loolee lu jaadule te itam war nañu sukkandiku ak sàmm charte yi nga xamante ni moom la ñu teg maître Seydou Diagne ñu teewlu ko ci micro Chérif Dia ak Alioune Diagne. Euh, kon mu mel ni élément boobee euh, sotteegul euh, ñu daal di delluwaat ci rek élément bi nga xamante ni kon moom la ñu doon wax léegi muy ordre de avocats ordre des avocats nag moom daal di taxaw temm nag ci lépp loo xamante ni ñu ngi koy génneti muy ay kàddu wala boog ay ndaje ak taskatu xibaar yi na nekk loo xamante ni ñoom ànd na ci moom ordre de avocats na fekk kii di bâtonnier bi joxe sañ-sañu nag ci avocats yi ñu am sañ suñu wax ak taskatu xibaar yi loole nag ki Euh, communiqué bi ki ñu ko jàngal moo diggéey bâtonnier ordre des avocats daal dina yëkkatikuwaat kàddoom ngir fàttali ay naataangoom ci ab communiqué gu mu fésal ci mbiram Karim Wade mi maître Ahmed Ba di dànkaafu ñi nga xam ne ñoo di avocat ñaari wàll yi ne kat su fekkee ne njëkkoon naa génn communiqué bu njëkk di leen dànkaafu dafa mel ni sama gars yi dañ koo tànqamlu eh, lii moo waral mu ne nag dootul nangu génn jalgati wala salfaañe jëm ci mbiram li nga xam ne moo di procès Karim bi mu ne procès boobu nag tax na ba képp koo xam ni da ngay laayal Karim Wade wala nga féetee ci nguur ga nga yëkkati ay kàddu yoo xam ni dafa tegginiwul di ko tekk si sa naataango mu ne lu ni mel nekk na loo xam ni sàmmoontewul wala wàccantewul ak li nga xam ne moo di charte yi ëmb lépp képp koo xam ne moo di laayekat ci biir réew mi eh, lii moo waral maître Ahmed Ba ne kat eh, procès bi eh, dafa mel ni sax buntu yi lañ koy amalee te itam ëttu tas xibaar yi fa la ñuy amalee li nga xam ne moo di àtte bi ndax kat ku jug rek daal di woote conférence de presse wax ci loo xam ni doo ci am benn ndénkaane ci bâtonnier ordre des avocats la lii moo waral nag maître Ahmed Ba ne fi mu toll moom mbir yi jeex na képp koo xam ne defati nga loo xam ne dëppawul ak charte yi nga xam ne mooy sàmm seenu liggéey dinañu jël ay daan daal di koy lal ci sa ndodd gannaaw lu jëm ci procès bu Karim Wade ñoom nañu ko waxee woon noonee la ñu ko defee muy liggéeykatu conseil régional ba ñi ngi doon tànkaafu nag tey jii dañu xëy xiifal mer ba fut la ñu def toog ci seen loko yooye di xiifal ndax lañu jàpp mooy lépp lu ñuy wax di seen naqar nag jëwriñ ji di Omar Youm da leen cee tànkam lu teg ci itam directeur des collectivités locales faalewu leen benn yoon ñu ànd ci ak Salimata Aw Seck liggéeykatu conseil régional bu ndakaaru yi ñaari weer lañu toog kenn fayu leen ci loolee ñu tàmbalee ak grève xiifal ngir jot seeni payoor toog nañu ñaari weer sans payoor ñu ñu war a daseel yépp ci gouvernement bi def nañ ko dem nañ sax ba toog ak imaamu Dakar ratib bi parce que neewoon nañu dañuy dem julli xaar président Macky Sall grande mosquée ne ko yow boo wooree ba ngoon am nga li ngay jox sa njaboot imaam bi ñaan ñu njëkk pour ñu bañ a def loolu ne moom dina porter combat bi yëgal ko ki ki mu ko war a yëgal mais à notre grande surprise bi muy xutba ah ñun dégguñu loolu. jëwrin gi ñu dénk wàllum collectivité locale ñoom nag xam nañ ni waxoon na ni dina leen fay wante ba léegi France daal di xëndeen. xam nga Alassane Mbengue moom luy problème am ñooñ ñoom ñoo induire ministre bi ñoo ko dugal ci njombe bi ñoom ñoo ko dugal ci njombe bi léegi ñoom dañuy défendre seen position. mais nit warul persister ci bêtise. ci ñi di amal grève xiifal soxna si si la bokk. yor ab liir bu ndaw ci ay yoxoom xamle na ni lum ci góobe gar ko. wax dëgg yàlla du dëgg du yoon liggéey ba weer dee ñu téye sa salaire lu mat ñaari weer loolu dafa métti mais dañ koy def parce que ñun ay employé lañu. nekk ay soxna aussi di sëy ci kër yi tey suñu responsabilité la à ce ñu bañ a xaar euh, toog di seetaan suñu yeneen nawle yi donc nii rek lañ mën a def. toll ci lu ëpp ñaari téeméer ak lu topp ñoom nag tàmbale nañu ab grève bu xiifal xamle nañu itam seen ay naataangoo yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir gox-goxaan yeeg ci dëkk yi nekk biir Sénégal dinañ leen fekk si bokk ci mbir mi. Salimata Seck ñeneen ñoo xamante ni bu ñu xiifalul it am nañu lu leen naqari lool mooy ñenn ci locataires yi dëkk ci ay immeuble yoo xamante ni daanaka day bëgg a daanu seen i borom nag di jékki saa su ne ña ngay raaxaat wala ñuy def fi peinture takat immeuble yooyu bu daanoo dana jur giraawaali gu rëy ñenn ni nag ñoom ne jot na kilifa yi taxaw ci lu ni mel waaye nag ña dëkk ca immeuble yooyu ñoom ba ñu leen laajee nee na amuñu pexe ndax jafe-jafe dund bi tax na daal ba mënuñoo def neneen lu may dëkk ca immeuble yooyu Pape Faxa ñi ay immeuble yu yàqu bay waaj a daanu ne xuus ci dëkk bi ca Grand kër yu bëri ñu ngi ko nemmeeku ñu leen di ñab-ñabal euh, borom kër yi ñu joxañ leen ci baaraamu tuuma. parce que mënoo dëkkal ay nit ñuy fay liaas weer bi dañu fay la kër gi su amee ay dégâts doo ñëw taxaw defar ko. boo yoree sa kër yaa ngi ciy bëgg a teg dara pour am location wala ainsi de suite pour am loo ci mën a gagné. locataires yi ñoom kenn demul ñu des naam sax xam nañu kër yooyu wóorut waaye amuñu pexe. kër yi bëri daal dañ koy daba daaxe rek am na kër yoo xam ne day yàgg day ëpp plus de 40 ans duñ ko defar te xam nga loolu te baaxul même ñun fi ñu nekk ni neexul ba neexul dafa yàgg wax nañ borom kër gi nag ba sonn waaye ay daba daaxe rek dañuy def ñàkk pexe rek bu ñoo génnee dem feneen def location dafa cher ngay dem benn kër ñu lay wax 50 000. xam ne mayoo ma saraxoo ma dama fa dee dugg tamit wax dëgg yàlla war entretien war naa faa mën a am chaque jour dëgg la parce que de temps en temps sax nga ay deux mois quatre mois sax wala kër gi dem ba peinture bi defar nga dugalaat yeesalaat am na ci solo chaque jour waaye nag borom kër yi chaque jour du ñuy gis lu ñuy gagné rek. ministre bu yor wàllu urbanisme ñu ko ci woo nag mu wut ci saafara ndax nag mbir mi mu ngi bëgg a ëpp loxo. ci euh, ci ci groupement des architectes ñu xëy dugg biir ci quartier quartier par quartier ministère de l'urbanisme mën na def loolu. ñu ñu wan leen kër yi nga xam ne yëpp en danger lañ ci nekk parce que ñi ngi menacé parce que am donc léegi bu ñu bàyyi ba ba jàngoro am ñuy soog a di wër naan nangam nangam. sénégalais yu bëri saa su ne rek di dëkk ak jëya bés bu ne ndax immeuble yi ñu dëkk yu ci bëri danoo yàqu bu ñu joxeñee baaraamu tuuma ñii di borom kër yi locataires yi ñoom lu jik njaak ñooy njaak Pape Fara ñi ngi ñeneen ñu ñu joxan baaraamu tuuma ci immeuble yooyee di daanu bokk na nag ci entrepreneur yi nga xamante ne seen xam-xam màccul lool ci wàllu tabax ñu cay dugg waaye tamit ñàkk sàmm code bi nga xamante ne teg nañu ko eh, ci wàllu tabax ku gisee nu ni mel ab architecte la di Charles Fall loolee nag eh, tax na ba muy sàkku daal ci kilifa yi ñu jël ay matuwaay ñu fexe nag ba képp koo xamante ne ni yaa moom immeuble boobee xoole ba jee joojee am yoon dal ci sa kaw ñu ànd ci ak Macky Tall Aline Diagne ñàkk jaar yoon lii di tabax bâtiment ak ay entrepreneur yu amul qualification firnde yi bokk ci li waral yenn tabax yi di daanu saasu ne. nit ki day jóg rek ne man architecte la keneen ki jóg ne man ingénieur la wala entrepreneur la métier dafa dafa di ay métiers yoo xam ne il nga jàng ko soo ko jàngul mokkalu ko euh, munoo def n'importe quoi. li am itam mooy transformation yu bëri yi xam nga nit day jóg rek ne damay yokk étage yokk benn ñaar ñett étage loolu kenn du ko defee noonu. ñenn ñi jàpp na seeti architecte ngir mu topp seen tabax luxe la Jean Charles Tall moom gisewu ko noonu tey indi leeral. mooy ne nit ñëpp a ngi naan architecte dafa chair luxe la mais nit ñi koy wax yëpp soo leen laajee xamuñu architecte ñaat lay jar. nit ku am million millions maximum bi ko architecte bi laaj mooy 500 000 francs sur euh, euh, 10 ou 15 mois. nga fay ko cinquante mille francs par mois pour mu defal la sa liggéey surveiller le chantier bi ñoom ñëpp dañu jaaxle di artu it nguur gi mu dëggal daan yi yoon indi bokkoon ci ordre des architectes bu Sénégal muy dellu si si mbébétu kuréel boobu si xeex xeetu tabax yooyu. bureau bi actuellement mu ngi ci góorgóorlu bu baax ñu ngi jéem a def ay information ñu ngi jéem a joxe jox nit ñi ay information si lan mooy njëriñu architecte lan la architecte mun a mun a def euh, nan la architecte mun a fexe ba nga économiser ce budget ak yu mel noonu. gouvernement bi. am na ay loi yu fi tëral yoo xam ne loi yu baax la nañ ko appliquer ku nekkul architecte buñ la bàyyi nga def yenn yi ku nekkul entrepreneur bu buñ la bàyyi nga def yenn yi te ñu bàyyi di naan non amuñ moyen yi amuñ lii amuñ lee. ñi faral di gis bâtiment yu daanu mu mel ni dafa jot ñu xoolaat nu ñuy jébbalee autorisation de construire yi. ñi di ko jaajëfal bu baax euh, Macky euh, Tall euh, professeur Babacar Gaye moom nag nee na décision bi nga xamante ni moom la njiitu réew mi jël te muy ñu amal ab référendum bëgg ko nag mbébét ko ngir nag ñu wàññi mandaam jële ko ci juróom-ñaari at yóbbu ko ci juróomi at loolee nag constitutionnaliste bi di professeur Babacar Gaye loolee gis na ni lu jaadu la ndax kat moo gën ñu jaarale ko ci pencum ndaw réew ma ndax loolu dëppawul ak charte yi nga xamante ni teg nañu ko ci wàllu loolee sax bu dee mooy am mooy li gën donte sax référendum moom euh, nguurug Sénégal dina ci ñàkk lu baree bari ñu ànd ci ak Fatimata Bah Modou Diop. ab référendum la président Macky Sall bëgg jàllale wàññiteef mandaam bi juróom-ñaari at ñu nar ko yóbbu ci juróomi at constitutionnaliste bi rafetlu ko. réduction mandat yóbbu ko ci cinq ans euh, thème de campagne am la ci thème yi gënoon a ci la bokkoon amaana sax am na ñu bari ñi nga xam ne. dañ ko wooteel ndax loolu dañ ko naw ci décision boobu ci promesse boobu mu defoon moo tax euh, doo doon man du ma doon rafetlu mu xàcc. ñu doon wax ne voie parlementaire moo gën maanaam jaarale ko ci assemblée nationale professeur bi ne bu boobaa njiitu réew mi day violer constitution bi. ci wàllu yoon ci wàllu droit euh, yoon boobu la war a jaar amaana mën na jaaree. assemblée nationale mais bu jaaree assemblée nationale amaana sax bu fa jaaroon loi bi mën na jàll parce que moo am na majorité te loolu yaakaar naa ne ci état de droit du lu nga xam ne dama koy dama koy rafetlu bu boobaa day violer constitution bi. référendum boobee nag mën naa dikkee nguurub Sénégal koppar yu bëri. dafa ne woon dina def ay réformes institutionnelles. révision euh, durée du mandat bi ak yeneen réformes institutionnelles. mu boole yëpp eh, ñu defandoo ko yóbboo ko ndoo ko référendum bu ko defee benn référendum rek mooy am waaw mais mais nag euh, bu dee ah, ci affaire wu li nga xam ne njëg mi mu war a jar démocratie nag dafa am njëgam. mu mel ni président Macky Sall askan wi la tàmm waxal ngir ñu xamle ndax waaw wala déet dinañu wàññi mandaam bi moom mi ko xamle woon ci jamonoy campagne ne bu faloo dina ko yóbbu ci juróomi at. Euh, Fatimata Ba askan wi la tàmm waxal ni mu ko waxee waaye askan woowee nakat nee nañu déet ñoom référendum ànduñu ci euh, benn yoon mu nekk nag loo xamante ni njiitu réew mi Macky Sall moo ko mbëbatoon ba muy euh, campagne ñoom nag dañu jàpp daal ne ab référendum nekkul lu jaadu sénégalais yi na nag war nañu daal xoolaat feneen ndax priorité yi ma nga ca yeneen i poñ na Mbaye Sow moo di Diop waat dossier bu jëm ci wàllu wàññi tepp mandam jëlee ko juróom-ñaari at yóbbu ko ci juróomi at mu gis ne ab voie référendaire dina tax ñu amal loolu le ay di ci joxe seen xalaat. le fait nag mu nekkaat fii di créer beneen référendum ñu ciy investir xaalis bu dul jeex je pense que euh, am na fu mu war a mën a gën a dugal loolu noonu parce que les sénégalais on a besoin d'autres choses que def nekk fii di def ay référendum. dans institution la kàddu dafay niroog texte loi wax. référendum ba tey luwaale am na ci droit def ko mais tous les moyens sont bons l'essentiel daal moo wax ne cinq ans dañ def cinq ans. gisee mu ne da koy réduire da koy kii c'est parce que il est il est critiqué quoi à il est critiqué bon peut-être critique yooyu moo tax euh, il doute il est en train de douter soit mu wàññi ko wala mu yokk ko. ñenn ci ñi ñu taseel gis ne Macky Sall war woon jël engagement ne day wàññi mandaam. moom boobu ne dafa fekkante ne affaire bi nekk sept ans alors donc aussi buy jël engagement la jël engagement yi nga xam ne war ko mën a tenir. xam nga aussi fu mu toll nii li genre de la démocratie la quoi. pays bi dafa am sa ay yi nga xamante ne si la tëdd y a la constitution y a les lois également donc loolu c'est pour montrer que aussi les hommes politiques là bu ñuy jël ay ay décisions nañ compte n'est-ce réalité bi nga xam moo fi nekk. ñenn ñi gis ne sax dafa def wax waxeet waaye fi mu toll nii priorité bi feneen la organiser ay référendum te baykat yaa ngi bëgg a dee travailleur conseil régional kenn fayagu leen loolu du Aminata Mbaye soo bu weesoo référendum boobee ah, Macky Sall ma ngay addu ah, saa su ne ca France 24 ca TV5 moom ba ca mujj di la voix de l'Amérique dafa yëkkati ay kàddu yoo xamante ne ma ngi ko fay dénkaane ah, Sénégalais nag ñoom gis ni loolee ëpp na boo demee bay wax na nga wax fa nga xamante ni fa nga war a waxee ndax wax na ci procès Karim Wade wax na ci jàngoroy Ebola waaye tamit jafe-jafe yi nga xamante ni ñi ngi koy nemmeeku jamono yi ci nguuru Sénégal loolee yëpp ñu gis ni ñàkk matadi moo ca nekk waaye tamit ñàkk seen bopp ci ñenn ci njiitu réewum Afrique yi Maimouna Ndiaye muy TV 5 Monde France vingt 24 La Voix de l'Amérique kër taskatu xibaar yooyu yëpp Macky Sall jaar na fa waxtaan ak ñoom lu soxal réewu Sénégal muy virus Ebola procès bu Karim wadd ba ci sax remaniement ministériel Macky Sall loolee lépp waxtaanee na ko askan wi ñoom ñu ne kontaanuñu ci li Macky Sall def. di bitim réew di wax sa problème mu dëkk au lieu nga arrangé ko fii ah. tubaab bi ma lañ leen ça se lave en famille mais dem bitim réew di jéebaan sa boobu di wax sa situation Sénégal au lieu que mu ne man duma ànduma si ànduma si wax dëgg yàlla ànduma si quoi. da ngay toog mu yàgg dégg ne Macky Sall dem na France wala Macky Sall dem na Canada wala Macky Sall dem na États-Unis def na une telle déclaration pour que sa population soit informée te lool noonu yaakaar naa ne c'est quelque chose boo xam ne dañ koy déplorer dañ koy déplorer à chaque fois du yoon. Macky Sall yéey yàbbi bu baax ci mbiru Karim Wade. askan wi ne am na lu mu waxul. parce que mbir bi tubaab bi ne procès Karim tiitalu ko tiital na ko. di ko siiwal la rek mais mbir mi moom mënoon na yem fii si Sénégal rek waaw muy àgg faneen fi quoi mënoon na yem fii si Sénégal rek ñu lijjanti ko fii daal parce que Karim fii la bokk. virus bii di Ebola bokk ci li njiitu réew bu Sénégal waxtaanee ak nasaraan yi waa ji rafetlu ko naam wante mu ne mënoon naa demee neneen. loolu mooy premier dossier lu ñu war a taxaw. wala leneen ay politique procès Karim léegi yëpp lu gën a tax mooy affaire bi. loolu bu gën a mën taxaw nag moom moo ëpp importance si loolu parce que loolu aar sa dëkk la situation c'est njiitu réewu Afrique dem ba bitim réew di fa waxtaanee lu soxal dëkkam du fi guléet lii tax na ba askan wi di leen ñaax bu baax ngir bu beneen yoonee ñu xool bu baax lañuy def ak a wax. yegsi nañu ci xibaaru tàggat yaram yi basketball lañu koy tàmbalee ak euh, final bi nga xamante ne nag euh, ASC ville de Dakar moom ñàkk na ko waaye teewul nag muy am xel bu dal ak it def bilan bu positif euh, ci saison 2013 2014 am entraîneur bi di Cheikhou Diouf moom nag nee na sax ci at mi ñu dëkkmal daañu recruter bu baax a baax ngir mën a yemoo ak Dakar Université Club ñu teewlu ko ak Cheikh Sadibou Diarra. dañu gagné Saint-Louis Dakar bi nga xam ne euh, Mor Duc ñoo fi mën bon euh, Duc gagné ñu ñaari yoon difficilement ñaari yoon largement bon beneen yoon année prochaine dinañ xam ni ko jël. tant que mi ngi jël jose yeneen équipe yi di dem Cameroun di jëli équipe di dem fu ne di jëli équipe Duc dina naxari gagné mais ñun dañuy ñëw sur place pour def la même chose que ñoom li ñuy def ça veut dire qu'à partir si tey jii nii ñoom nañ xam ne recrutement bu ñu mun def ñun mun nañ ko def parce que nag nag quand dañuy teeloon njukkal suñu maire def ñu suffisamment de moyens pour ñu mun recruter à partir de demain dinañ ko def incha wàllu football la ñu jeexalee xibaaru tàggat yaram ak dakaar Sacré Cœur mi nga xamante ni euh, jël na raw gàddu gi ci petite catégorie yi euh, ci centre de formation bi nga xamante ne nag kon fa la ñu nekkoon ñoom ñooñee wane nañ seen bopp bu baax muy si cadet yi ba ci sax junior yi ñoom nag daal di nañuy am ndam ci kaw asma juróomi bal euh, ci ñaax ay tamit am nañu ndam tamit ci kaw osmo respectivement muy ñaari bal ci dara leeral yeeg Cheikh Abdou Aziz Kane Dakar Sacré-Cœur teg na tànkam ci petite catégorie ci région Ndakaaru centre de formation bi dafa jël ndam li ci cadets yi ak ci junior yi ci final championnat régional yi junior yi moom dañoo dóor Oslo ñaari bal ci dara kii di Ibrahima Sagnam moo dugal ñaareelu but bi. premier mi-temps dañu joué ak ñoom boo ko seetloo ñun ñoo leen ëpp ci lu ñu téye ballon bi joué nañu benn mi-temps suñu góor boo ko seetloo laalu presque ballon bi en premier mi-temps mais après ñu xool ni dafa xaw a ci kanam. loolu moo loolu la ñu andi en deuxième temps na na football bi gën a gaaw donc bu ñu yegsee ci tiers bu mujjee bi na gën a gaaw ñu bàyyi ballon bi pour ñu mu dem parce que on avait des courses devant moom la ñu def et je crois que loolu moo andi ñaari bi ndamu Tadey nag moom moo gën a leer ñoom juróomi bal ci ñaar lañ dóor asmaa. dafa war dawal bal. loolu la leen defal nii dawal bal bi ñuy insister ñoom ñoo ñu mën a 1-0 ñu ne xale yi dawal leen rek xëj na dina ñëw te loolu moo tax ba score bi euh, tollu noonu 5. ab doublé nag bu wutee ak performance yi senior yi def ñoom ñi nga xamante ni ñetti at a ngi nii ñuy lajj monté Ligue 1 bi. ñun depuis bu yéegee dañ doon di jëli ji ci biti parce que dafa nekkoon ci dañ nekkoon ci moment boo xam ne ci formation lañ nekkoon donc dañ doon togg pour ñun léegi ñu togg ça léegi ñetti at boo ko seetloo ñu ngi finaalu ci junior yi donc loolu ñu togg pour ñun war na commencer ñor. donc je crois que bu xale yooyu ñu andi ñoom la ñuy yóbbu rek pousse leen rek ñu xool lan la ñu borom bi di jox daal. ñaari ndam yi nag ñëw dëggal ni Dakar Sacré-Cœur mooy sant de bi gën a performant ci région Ndakaaru Abdoul Aziz Kane ñi di ko jaajëfal bu baax ñu ànd yër li yéen i kaay xëyandoo ak borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf Karim Wade ak xëy yi fa ñuy mujjee ku fan doo ko fekk observateur nañu ñetteelu fanu layob Karim Wade bi démb la woon waaye yëf yaa nga tàggatim bi ci CREI yi war na àtte Karim Wade ak ca haute cour de justice la ko war a dem lu toll ci ñeenti waxtu yi lëmm yéen a kaay bi nañu awakaay nguur geeg awakaay Karim Wade yi ñoo ba am CREI yi jàppal haute cour de justice awakaay Karim ne du cour gi ne ñoom noppi nañu ngir cour répression enrichissement illicite atte Karim Wade te moo ko war a atte maître El Hadji Diouf bokk ci awakaay nguur gi nañu ci yéene kaay bi awakaay Karim Wade bu dee nee nañu reconnaître ñu kër yi lan moo tax li ma fi sulli woon waa kër yi wan ma ca ginnaaw ànd ak ñoom tax ñuy fëgg seenub dana di zibile bu dee reconnaître ñu kër yi lu waroon ñu doon zibile maître Ciré Clédor Ly nañu coow li ci pindab teen bi ñu amul baaga ko waral gars yi bu ñu nekk fii di saaga ak wax ju ñaaw ak wax ju ñàkk war ma daa fekk ne amuñu dara lu ñu wax moo tax ñu bëgg ko féetale maître Alaaji Amadou Sall ba tey ci observateur xanaa ñu fa ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar ñu naan moom la Karim Wade ngembal bés bu ñu indee ab tàkk di preuve yu wér ci ne loolee Karim Wade ko def bu boobaa fi saa si lay xotti sama rob bu jox leen sagar yi génn dem baleen fa ñu fekkat ko ci la Sénégal moom maître Alaaji Amadou Sall mu ne ñu fa fu Karim Wade ne li yor sama bàyyee ko jox Macky Sall war ne fa ne li yor sama nijaay Viviane Wade nday Karim Wade ba mu déggee kii di maître William Bourdon di méngale doom ja ak ñi nga xam ne ñoo doon defi ñaawteef ci Italie ci Union soviétique madame Viviane Wade xar suuf si dugg ci la bëggoon Pape Samba Mboup moo fa nekkoon doon ko dëfal ak di ko dalal populaire nañu ab xare dëggantaan Ndiaye moo am ci diggante awakaay nguur gi ak awakaay Karim Wade yi maître Simon Ndiaye bokk ci awakaay nguur gi ay kàddoom ci xëtu njëkk journal bi mun nañu fa ku mas a dégg monsieur le ministre moo la war Bibo Bourgi yéen a kaay bi dañu avocat Karim Wade yi li ñuy sàkk ci tribunal bi moo di ñu bañ ko yóbbu France na fi toog bala yow ba jeex ndax mbir mi ñuy toppee Karim Wade Bibo Bourgi lëf la ca Le Quotidien nañu Bibo Bourgi mooy caabi ja Henri Grégoire Diop mi président tribunal bi li mu bëgg moo di ñu déglu Bibo Bourgi laata ñu ko yóbbu ca France ngir faja ko fa ñu dem ci L'Observateur fekk fa Macky Sall mi xëy dem ci télé bii di TV5 ma ba may tiital ci lenn la si nekkaay nañu lu aju ci wotey présidentielle yi 2017 yi Macky Sall caaxaanewu ko benn yoon li mu bëgg moo di faluwaat ba tax na campagne ñaar fukki fan ci ca la koy door ma nga koy dooree ca Ross Béthio ak ca richard conseil des ministres yi doon amal sax yéene bi nañu ajandee gum nañu ko ci diirub ñetti weer professeur Malick Ndiaye Walf Fadjri xëy dikk ak ñun ci lenn ci livre bi ko dàqalo mu di où va la république yéene kaay bi nañu professeur Malick yoonu sànq réew mi ni mu a yore mais cin bu naree neex bu baxee xeeñ sauver ou périr la ñu daan wax léegi koy bu teg ci sauver ou fuir Serif Ndaw di sapeur pompier bi faatu woon ca Thiès ba ñu koy tàggat ay mbiram am na lu ca yees bil observateur doyen des six Maodo mu Diouf am na juróom-ñaari nit yu mu ca teg loxo yéenekaay bi di observateur nañu laat ndoy la ak Cheikh Ndiir ñoom ñaar ay accident la ñu keneen ku ca topp Bakouche Nji Basang la Baye Thiaw Jean Baptiste Sagna ak ak El Hadj Mamadou ñoom juróom-ñaar ñëpp ay sapeur pompier la ñu démb rëbës la ñu fanaan ma daanu ji ci populaire xooli fa Abdou mbakke Ndaw maire Mbacke bi daan ñëpp yéenekaay bi nañu ODCAV bu Mbacke ñoo ko seeti woon ngir mu jàppale leen ci nawetaan yi subvention bi maire bi di baaxee mouvement nawetaan yi at mu nekk ba gars yi ba gis ko moom mu le maire Abdou mbakke Ndaw ay cuuc la yëkkati jox leen ne leen dem leen yari ko bu ñu màggee ngeen jaay ko jàppale ci seen bopp ñi di ko jaajëfal bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye ñi féete woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti canta ak ngërëm ñeen leen rédaction bi dina fi dellusiwaat 19h ak 20 ak yeneen i xibaar jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias